ñun ndaw ñi ñoo gën a dellu ginnaaw te lu bëri war eh, wala lu ko gën a waral mooy gars yi ñoo ñu delloo ginnaaw mooy ñu yore réew mi ñu doxal réew mi ñoo ñu delloo ginnaaw parce que soo xoolee suñu réew bunt yu néew leen ñu jox pour bunt yoo xamante ni ndaw yi mën nañ ciy yëngu suñ seetee liy jàng ci ndaw ak liy liggéey si ndaw suñ seetee ñaata opportunité lañ tegal ndaw ñi pour ñu mun ci yëngu dafa néew fii Gambie bi dem na ba soo jàngut ndaw bu jàngut lu mun rek mooy liggéey doole ndaw bu jànga it fexe nañ ba euh, yu néew la mun a def comme ibbiwuñ bunte yu bëri pour ndaw yi mun cee yëngatu